Bienvenue sur Salam Vision. المختار وهو المؤيد نبوت قبل البرايا قد جل sëñ ji màggal gi ni ma ko waxee rek màggal gi day mel ne ren la ci téeméeri ndax maa ngi koy leeral barki dem rek. sëñ bi daa mel ne uit la ko njëkk a def. waaye booba moom képp a ko def. ba de at mu ne da koy def ndax at mu ci ne bu bis bi egsee bis bi mu jóge woon Mbacke Bari. dana yëg ci boppam loo xam ne bu ñu wutoon téeméeri wàll yu teg leen ko. danañ sonn coono boo xam ne duñ ko attan. ñu fab ko teg ko ko moom. mu di ko dékku te di ko yàqal jaamu yàlla du ko yàqal sikkar du ko yàqal bind ci yonente bi du ko yàqal bàkk boroomam ak màggal ko ak fonk ko ak sopp ko ak la ma war a def lépp ci jaamu yàlla mu di ko def te te mu yëg natt bi na ko war a yëgee ndax bëgg lam bëgg suñu borom fayee ko ëllëg dafa diis diis goo xam ne moo tax bi mu liggéey ba liggéey bi àggit taxul ñu bàyyi natt bi di ko teg rek mm-hmm. ba mu jógee gànnaar ba ñëw jolof ba ñëw njaareem muy 1918. Mm. ñu ne suba la mu tàmbali ko waajal nag waaw laxasaayu waat nag di néeg nag nattu bi bi mu xëyee nag yëgut dara salaam salaam ne ko sa borom nee na mm. bis bii liñ la ci daa teg ci nattu doona tut bis booy jële nangu recevoir ci daal recevoir ci ay nattu mm. déedéet léegi da ngay recevoir ay ay ay ay bisub cant la waaye du bisub jëli nattu da koo soppi moo tax safarul xuruj ak safarul xaraaj mooy loolu. nee keroon keroog nag la tàmbali nag suñu borom na ko nag mboolem lu ma waxante woon nag yow nattu naa la seet la wet gu ne ba nangul naa la li ma wax ak yow lépp. léegi nag li ma la ci war a may ci bis bi bis bu excité yi lu toll noonu dama la ko ci mayaat. suñ bi daal tàmbali ci bis boobee nag. di sant. cant goo xam ne ci boppam la yem. Hmm. ca kenn booluwu ca kenn. diggam ma boroom mm-hmm. waaye cant ga nag suñu borom di ko fay muy gën a bëgg di ko fay. 18 19 20 21 ba 22. 22 mm-hmm. nag mu àgg ci nag gis cant gi àgg foo xam ne boppam doyatu ko ci. Mm-hmm. mu ne nag képp koo xam ne sama mbég sa mbég bis na ki tey dama sant la yàlla ndax sama bopp doyatu ko ci. daal di woo suñ Balla Fally. am na taw feex lool bokk na ñu amoon tawféex yi moom la suñ bi njëkk wax ne ko jëlal lii mu jël lii ne ko wàññi ko. sëñ bi nag xaalis yi nga xam ne dafa dagan ci moom. Hmm. sëñ bi lépp lu sëpp lépp lu ko jege suñu borom da koo may moo a wax moom. Hmm. fi ne loo mën a indi sa xaalis bi bu raxee lu dagan lu daganut xaalis bay wax ak moom. moo tax xalima gi rek la koy laale. Hmm. lu ci bokkut dëgg ci génn ba mu set. léegi di bari bari daa am lu mu sañ laal ak lu mu sañ laal. lam ca xool ba mu lew na xalaalan tayiban mu daan lii lii lii sama borom jox na ma ndigal yóbbu ko ñu jënd ci mburu ak café ak attaay ak suukar mbedd yëpp nañ ko topp jox ñëpp ñu la bu fen des muy ñetti téeméeri dërëmi ngurdu booba fukk ak ñett suñ ma suñ fay la génn nag nga xam ne loolu kenn xamul nu mu toll booba ci alal buñ ko doon xayma léegi alal ju bëree bëri la lépp ñu jënd ko lépp rek ñu jënd ko ci bis bi kafe suukar mburu lu ne rek topp mbedd yi wut ay ay yu mag di tàngal ay café ak ataaya ci mbedd yi di ko taal fu ne rek foo toll rek di xéwlu. Mhm. ku bëgg ku bëggu dañ la jox <laughs> bis boobee nag. Mhm. boo ko xoolee 1922 la. loolu nag ak ren ji 2022 yaakaar naa téeméeraat la. Mhm. kan nag màggal màggalu exception exception la ci màggal yi moom. waaw da ngeen koy beral loxo. da ngeen koy beral loxo yéen ñu ne fii. ñu ci mën a dem nañ teel a waaj. na ngeen xam ne kat. am na ñoo xam ne bu ñu leen newoon équipe équipe sàngam wala euh, gaañam koy gën a xam coupe du monde wala yooyu yi nga xam ne dañoo fonk football lool. ñooy barab sàngam kat dañ fay def coupe bi fa lañ koy def. Mm-hmm. am na ñoo xam dañuy paas bàyyi ñuy def buñ ko mënee buñ ko mënul jar leen sax fa ñuy liggéey ñu ñu lay leen ne damaa tawoon ñu defal leen naa ngir bëgg koo fekke ji. Ah. toog fa ay minute dong fekkee football bi dellusiwaat dellusiwaat. Mm. te duñ leen ca fay dara dañoo neeneel seen jamono bu ëllëgee ab safaan sax la leen cay fay bu jeexee ndax faat nañ fi julli def nañ fi ndega am na ñoo xam ne jaral na leen loolu yéen itam màggal na leen jaral lu ngeen man ak lu ngeen suñ Tuubaa dane ku ma defal li nga man ma defal la loo mënut ku ma defal loo mënut ma defal la loolu jomb kon kooku man lu néew néew dem ndax sëriñ bi moom ba koy santaane dane fu waay nekk na ko def na ko def sant li ma yàlla bi sëñ Fall ne ba xam ne situation bi laaj ñi ñëpp di ñëw Touba mu yaatal ko ne ñi ñëpp nañ koy defee Touba kon ku ko defee Touba benn benn bal nga sànni jam ñaari rab jëfe nga ndigal sëñ bi jéggi ndigal sëñ Fallu ñëw Touba koo xam ne am nga ngànt bu wér wér foo ne sëñ Touba nga fa foo ko defee sëñ Touba nangu ko nanga nga fexe fa nga toog daal ñëpp bég tañ xam ne bis bii wuti naag bis yi ci des loolu rek mooy màggal màggal nag luñ la ci mën a wax màggal màggal mm. bernde bernde rek comme daal na wuuteeg bis yi ci des na ñëpp bég te yéene ci bégal bég bégle sëñ Touba mm. sant la ko yàlla loolu rek mooy màggal bu ngeen bu ngeen amee ngant lu wér ba defe ko fii. Hmm. na ngeen xam ne yéen ak ña nekk ci pencum Tuubaa di ko def yéen a yem. képp ndax sëñ Tuubaa ma ngeen ma mañ koy defal. man hmm. na leen fekk fii sax dugg seen biir te du ngeen xam ne mu ngi seen biir waaw weesu na foofu. kon nag pas-pas bi rek a ci am solo. Hmm. na ngeen góorgóorluwaat bu baax a baax. yeesalaat pas-pas yi yeesalaat pas-pas yi. gone yi gën a góorgóorlu bu baax a baax gone yi nañ gën a góorgóorlu lu baax a baax fonk xasida yi. Euh, ab liir bu nanguwut a nàmp meewam ndeyam mm-hmm. ku ko xam ku ne da nga xam ne kii ay fanam bëreetut lee mu mm-hmm. faatu waaye murit rawatina mm-hmm. gone bu fi ne ñu ko xasida yi ne ca ko wóor ni kon nag xasida yi rek dina jàng xasida yi ñuy durus durus ñu naqare baat ne man noppi ñu ñu neex baat di jàng waaye ñàkk jàng xasida xaru la ci murit <laughs> fonk leen xasida yi rek bu ngeen ko fonkee seytaane du mën ci yéen dara wa man yaxsh an zikri rahmaani nuqayyid lahu shaytaanan fa huwa lahu qariinun seytaan li muy bari bari doole. kuy jàng xasida rek ko jaaxal. waaw di leen jàng xasida mi daal di waa qalaami li man sax sax alyam kama sax sax shaytaana wal jahla wal qamma. xëy rek ko mën a def. te xëy mu mën a def fexe bu jublu sëñ bi. kon nag ndokke noonu daal. ndokke noonu ndokke noonu maa ngi leen di ñaanal nag. sëñ Tuubaa xaasal leen ci xéewalam yi nga xam ne du jeex du xaaj ngeen am xéewal yi ngeen ko liggéeyalee te bu ngeen ko liggéeyalee ba noppit ma nangul leen ko te may leen jàmmi adduna ak jàmmi àllaaxira ci barke sëñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi والمصطفى المختار المؤيد نبوة قبل البرايا قد جلت